قلبي لو فيتنا بالجلال

ci baaxu sëriñ bi. ñu tàmbalee ci sant mbokki taalibe yépp. ñu ngi tàmbalee sant mbokki taalibe yépp. ba ci ñi nga xam ne dañoo féete ci liggéeyu kër gi. ba te balaa bis bee ñëw loolu ñu yittewoo te mu nur lu yomb muy mat ñu koy taxawu. ndax balaa bis bee ñëw loolu ñu yittewoo te mu nur yomb muy mat dañ ciy taxaw mu mat. waaw ñu koy koy ci taxawé dafa rafet lool té yalla yalla fay leen ci ngeen ji fay mu ne ñu ci taxaw dafa rafet lool té yalla ñu yalla fay ngeen ji fay ah day nuru yomb waye yombut mu ne day nuru yomb waye yombut bokki talibé yi nga xamné itam mu ne bokki talibé yi nga xamné tam balaa bis be ñew bala bis be ñew ñu tambali ko wajal di ci sonn ñu tambali ko wajal di ci sonn su bis bi ñewé itam ñu di ci sonn lool. bu bis bi ñëwee tamit ñu ciy sonn lool. ba bis bi jàllee itam ni ki tey jii ñu ci sonn coono yi méttee métti. bu bis bi jàllee itam ñu ak mboolem ñu fi teew ñëpp te yàlla tax. ak mboolem ñu fi teew ñëpp te yàlla tax. ñu ngi maasoo ci sant yëpp ñu ngi sant ñëpp. mi ngi maas di sant ñëpp. coono yi dafa metti ba li koy woyofal rek mooy. mu ne coono yi dafa metti ba li koy woyofal mooy. lii sëñ mag bi waxoon ne mu ne li sëñ bi mag bi waxoon ne kenn deful kenn dara kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara kenn defalul kenn dara lu waay def rek boppam lu waay def rek boppam waaw loolu mooy tax rek coono yu metti yi di woyof ci man ci wet nee na moom yu metti ci moom ci wet ak li ñuy wax ne mu ne am na ñu wax ne ak li ñuy wax ne ak li ñuy wax ne boo sonnee ci lu baax. boo sonnee ci lu baax. coono ba day daal di dem. coono ba day daal di dem. lu baax la des fa. lu baax la des fa. tuyaaba ja des fa. tuyaaba ja des fa. boo toppee la la neex nag. boo toppee la la neex nag. neex sa bakkan. neex sa bakkan. ba tax nga def lu yàlla bañ. ba tax nga def lu yàlla bañ. bànneex ba day daal di dem. bànneex ba day daal di dem. bàkkaar ba des fa. bàkkaar ba des fa. yal na yàlla fay leen ci taxawaay yépp ci baaxu sëriñ bi. yal nañu yàlla fay ci taxawaay yépp ci baaxu sëriñ bi. ñun ñëpp nag ameel nañu suñu boroom cant goo xam ne. ñëpp ameel nañu suñu boroom cant goo xam ne. mënuñu koo matale. mënuñu koo matale. bi nu yàlla mayee nu bokk ci waa lislaam. bi yàlla mayee ñu bokk ci waa lislaam. day xéewal gu doy sëkk. day xéewal gu doy sëkk. mu booleen mu bokk ci waa kër sëriñ bi nag mu boole ñu bokk ci waa kër sëriñ bi nekk ci yoonu sëriñ bi nag nekk ci yoonu sëriñ bi loolu dafa rëy loolu dara tolluwu nii loolu dafa rëy loolu dara tollu nii daa mel ne nag gannaaw bu gëm yàlla jàllee mu ne daa mel ne nag gannaaw bu gëm yàlla jàllee sopp yàlla sopp yàlla ak sopp ku yàlla sopp ak sopp ku yàlla sopp ak sopp lu yàlla sopp ak sopp lu yàlla sopp moo gën a rëy ci mbooleem xeeti tawfiix yi moo gën a rëy ci mboolem xeeti tawfiix yi tawfiix yi yàlla yi tawfiixale ab jaam tawfiix yi yàlla tawfiixale ab jàmm te mel na ni mbooleem ñu nekk ci yoonu sëriñ bi moom mel na ni mboolem yoonu sëriñ bi moom bi ëmbaale na leen ci sopp gi mu sopp yàlla sëriñ bi ëmbaale na leen ci sopp gi mu sopp yàlla sëriñ Touba. mu ne sëriñ Touba. ci coobaree yàlla. ci coobaree yàlla. yàlla da koo defal sopp yàlla. da koo defal sopp yàlla. ba yàlla gënal ko lu dul yàlla. ba yàlla gënal ko lu yàlla. gannaaw yàlla it yàlla def ko mu sopp yonent bi ba. ginnaaw yàlla tamit yàlla def ko mu sopp yonent bi ba. soppewu ni leneen. soppewu ni leneen. ni yàlla yi defee nag. mu ne ni yàlla yi defee nag. li ci ëpp pay day xeetoo jëf ja li ci ëpp pay jëf ja sëriñ bi ni mu soppee yàlla ak yonent bi sëriñ soppee yàlla ak yonent bi te yàlla rek xam nu mu toll te yàlla rek xam nu mu toll moo tax mu bindu ci boo dee xool majmuha mu ne moo tax mu bind boo dee xool majmuha xët wa tolloog ñeent fukk ak wa tolloog téeméer ak ñeent fukk ak ñeent mune yalla mi dogal dogal na mune yalla mi dogal dogal na man mi bind araf yi man mi bind araf yi malaka yi niñ ma soppé wuñ ni kenen malaka yi niñ ma soppé wuñ ni kenen gannaaw yalla gannaaw yalla ñi ma sa yoon itam ñi ma sa yoon itam ak ñam ak ñam sa solo te yu leen ak ñam sa solo te yu leen ñepp nañ ko sopp neena gannaaw yàlla ñoom ñëpp dañ ko sopp nee na ginnaaw yàlla cofeel goo xam ne soppiwuñ ko keneen cofeel goo xam ne soppiwuñu ko keneen soppiwuñ ci keneen lu tol noonu soppiwuñu ci keneen lu tol noonu ñi yàlla may cër ci yàlla itam ñëpp nee na ñi yàlla may cër ci yàlla tamit ñëpp nee nañ ah, sëñ bi ma wax loolu moo ko bind sëñ bi ma wax loolu moo ko bind ne niñ ko soppi soppiwuñ ni keneen gannaaw yàlla ne niñ ko soppi soppiwuñ ko keneen gannaaw yàlla ñi gëm yàlla te seenu gëm matit ñi gëm yàlla te seenu gëm matit mu ne niñ ko soppi gannaaw yàlla mu ne niñ ko soppi gannaaw yàlla soppiwuñu keneen mbaa leneen soppiwuñu keneen mbaa leneen sëriñ bi nag noonu ko yàlla jagleele cofeel gu demee noonu sëriñ bi nag noonu ko yàlla ko cofeel gu demee noonu da koo jagleel mu xame noonu yàlla da koo jagleel mu xame noonu yàlla ame noonu yàlla ame noonu yàlla nga xam ne lépp lu yàlla bëgg. nga xam ne lépp lu yàlla bëgg. lépp lu yàlla bëgg rek. lépp lu yàlla bëgg rek. moom rek lay bëgg. moom rek lay bëgg. lépp lu yàlla bëgg yi defal na ko yàlla. lépp lu yàlla bëgg tamit defal na ko yàlla. lu yàlla bëgg tit mosu koo jege. lu yàlla bëgg tit mosu koo jege. ba mu ne sax. mu ne ba mu ne sax. moom sëriñ bi mu ne. moom sëriñ bi mu ne. mësta fàtte. mësta fàtte. mësta juum. mësta juum. mësta jàdd jàdd gu tuuti rawante na gu mag. mësta jàdd jàdd gu tuuti gu mag. maam Thierno itam. mu ne maam Thierno itam. mi ñuy fàttaliku ba tax ñu daje fii. mi ñuy fàttaliku ba tax ñu daje fii. yàlla tawféexale ko. yàlla taw tawféexale ko. sëriñ bi moo ko féetaleel boppam. sëriñ bi moo ko féetaleel boppam. moom it bëggut lu may sëriñ bi. moom it bëggut lu may sëriñ bi. ba sëriñ bi waxanteeg moom ci mbind yi mu koy mbind ne ko. ba sëriñ bi waxanteeg moom ci mbind mi mu bind ne ko. yow mi ñu rendee paakab sopp ma. yow mi ñu rendee paakab sopp ma. waaw mel na cofeel gi mu ko sopp day paaka ñu rendee ko ci moom ku baax kii borom daaru mu ne cofeel gi mu ko fa sopp day paaka ñu rendee ko ci moom. waaw noonu la ko sëñ bind ci baati arab yi. noonu la ko sëñ bi bind ci baati arab yi moom itam bi ko yàlla mayee mu féete ak sëñ bi te soppe ko noonu. moom itam bi ko yàlla mayee mu féete ak sëñ bi te soppe ko noonu. yàlla da koo may mu xam ci sëñ bi loo xam ne mel na ne keneen xamu ko ci. yàlla da koo may mu xam ci sëñ bi loo xam ne mel na ne keneen xamu ko yàlla may it mu am ci loo xam ne daa mel ne keneen amu ci. yàlla may ko it loo xam ne daa mel ne keneen amu ko ci. yàlla defal ko itam sëriñ bi ci boppam. mu ne yàlla defal ko tamit sëriñ bi ci boppam. seeral ko ne. seeral ko ne. masuta tàggoog moom. mësta tàggoog moom mësta jàdd lu tuuti tuuti mësta jàdd lu tuuti tuuti ci ak bëgg moom sëriñ bi ci ak bëgg moom sëriñ bi te loolu lu mu ci lettre yi ñu bari di ko jàng bari miin nañ ko mu ne loolu lu bind ci lettre yu bari ñu ko jàng ñu bari miin nañ ko waaw du rek lu koy waxtaane léegi lu sëñ bind moom yu bari ñu koy jàng ba léegi mu ne lu ñuy waxtaane loo xamee dañ ko waxtaane lettre yi bari na loolu ñu koy jàng ba léegi waaw kon sëriñ bi yàllaa ko jagleel sopp yàlla kon sëriñ bi yàllaa ko jagleel sopp yàlla te mësuta jàdd lu tuuti tuuti la yàlla bëgg. mësuta jàdd lu tuuti tuuti la yàlla bëgg. maam Thierno itam yàlla jagleel ko sopp sëriñ bi. maam Thierno itam yàlla jagleel ko sopp sëriñ bi. te mësuta jàdd lu sëriñ bëgg lu mu tuuti tuuti. mësuta jàdd lu sëriñ bi bëgg lu mu tuuti tuuti. waaw ñun ñu ànd ak ñoom nag. ñun ñu ànd ak moom nag. yàlla may na nu ñu sopp leen. yàlla may na nu ñu sopp leen. sopp sëriñ bi sopp borom daaru sopp seen seen ñun ñëpp seen waa kër ñëpp. sopp sëriñ sopp borom daaru sopp seen waa kër ñëpp. waaw loolu yàlla defal nañu ko nu mboolem taalibe yi. yàlla defal nañu ko ñun mboolem taalibe yàlla defal nañu ko ba noppi ñun mboolem taalibe yi. yàlla defal nañu ko ba noppi ñun mboolem taalibe yi. ba ba ci suñu biir sax. ba ci suñu biir sax. ku ci ràññeeku ci sopp leen. ku ci ràññeeku ci sopp leen. nu gën laa sopp gën laa jàpp ngir loolu. ñu gën laa sopp gën laa jàpp. waaye nag bi nu eh, bi yàlla baaxee cofeel googu. waaye nag bi ñu yàlla baaxee cofeel googu. ci Serigne Touba ak borom ak seen ñoom ñëpp. ci Serigne Touba ak borom seen ñoom ñëpp. Eh, li ñu wutalee ñoom mooy. li ñu wutalee ñoom mooy. sëñ Touba gannaaw bi mu soppee yàlla. sëñ Touba gannaaw bi mu soppee yàlla. mës a jàdd ci li yàlla bëgg dara lu mu tuuti tuuti. mës a jàdd ci yàlla bëgg li yàlla bëgg dara lu mu tuuti tuuti. borom daaru itam bi mu soppee sëriñ bi noonu. borom daaru itam bi mu soppee sëriñ bi noonu. mës a jàdd dara lu mu tuuti ci li borom ci li sëñ Touba bëgg. mës a jàdd dara lu mu tuuti ci li sëñ Touba bëgg. waaw ñun nag bi ñu yàlla xéewalee cofeel googu. ñun nag bi ñu yàlla xéewalee cofeel googu. waaw daa mel ni lu xaw a jafe mooy. daa mel ni lu xaw a jafe mooy. bañ a jàdd. bañ a jàdd. waaw ah, li ñu jafe ñun. li ñuy jafe ñun. waaw ah, mooy ja baña a jàdd moo ñu jafe lool. bañ a jàdd moo ñu jafe lool. waaw ah. waaye nag sëriñ bi nee na woon. waaye nag sëriñ bi nee na woon. li wala fi wax naa li wala fi wax naa lu nit am yàllaa ko ko may. li wala wax naa lu ko may. lu mu amut yàllaa ko ko mayut. lu mu amut yàllaa ko ko mayut. sëriñ bi nee demewul noonu. sëriñ bi nee na demewul noonu. nit lu mu am yàllaa ko ko may. nit lu mu am yàllaa ko may. waaye lu mu amul moo ko ñaanut. lu mu waaye ko ñaanut. kon nag bi ñu yàlla mayee ñu soppe leen noonu. kon nag bi ñu yàlla mayee ñu soppi leen noonu. waaye nag bañ ngee jàdd xaw noo jafe lool. waaye nag bañ ngee jàdd xaw ñoo jafe lool. waaw kon dañuy faral di ñaan ci seen daraja. kon nañuy faral di ñaan ci seen daraja. yàlla may ñu. yàlla may ñu. ni ñu leen soppee. ñu leen soppee. luy matale seen digal ñuy matale seen digal di baña jadd bu jadd mënta ñak buñ jaddé gaaw delu ci yoono di baña jadd bu jadd mënta ñak buñ jaddé gaaw delu ci yoono tay fatalé né li waxone ci lañu xamé nit aajom fajuna moy tay fatalé lañu xamé nit aajom fajuna moy dem ba mënta gënat ndigal dem ba mënta gëna ndigal su demé ba lag ci ndigal bi rek biti bu demé ba lag ci ndigal bi rek biti nga xamné fexé ba ndigal nga xamne mënu ta fexé ba génn ci ndigal lolu mandragam faju aajo la lolu mandragam faju aajo la bu démé dem tam ba mënu ta gis sikus kenen mu ne bu dee ba mënta gis sikus kaneen bopum rek la mëna gis bopum rek la mëna gis sikus bopum rek la mëna gis sikus bopum rek la mëna a gis waaw ba tey tegtalu ak defaru la loolu tam ba tey ñu tegtalu ak defaru la waaw tegtalu paju aajo la defaru paju aajo la tegtalu paju aajo la tegtalu paju aajo la kon dañuy jëm rek tay ñaan boole ji mu ne kon dañuy jéem rek tey ñaan boole ci. daa mel ne li sëñ bi li sëñ bëgg ak Thierno ñi ànd ak ñoom ñëpp. mu ne daa mel ne li sëñ Touba bëgg ak Thierno ak ñi ànd ak ñoom ñëpp. ñu ci bari xam nañ ko. ñu ci bari xam nañ ko. daanaka daa mel ne xam gi moom jëfewut. mu ne daanaka xam gi jëfewut. waaye nag dogu gi. waaye nag dogu gi. ak bëgg lañ bëggoon te di ko jéem. ak bëgg lañ bëggoon te di ko jéem. waaw loolu moo xaw moo xaw a manqué ci noonu. loolu nag moo xaw a manqué ci ñun. bu dee kon danañ faral di ñaan ci seen daraja rek. mu ne kon nañuy faral di ñaan ci seen daraja rek. yàlla mi nu may nu sopp leen. yàlla mi ñu may ñu sopp leen. mu may nu di jéem bañ a jàdd seen yoon lu mu tuuti tuuti. mu ne mu may ñuy jéem di bañ a jàdd seen yoon lu tuuti tuuti. te am na yàlla daa wuutale nit ñi am na ñoo xam ne lee lee da di yomb lee jafe leen. mu ne yàlla daa wuutale nit ñi am na ñoo xam ne lee da leen di yomb lee jafe leen. waaw kon ku ne ci ñun day seetlu bu baax boppam. mu ne ku ne ci ñun day seetlu bu baax boppam. lépp lu mu xam loo xam ne mi ngi koy def ci ndigal. lépp lu mu xam loo xam ne mi ngi koy def ci ndigal. sant yàlla te di ci góorgóorlu fu mu toll. sant yàlla te di ci góorgóorlu fu mu toll. lépp lu ko ci jafe muy ñaan yàlla yombal ko. lépp lu ko ci jafe yàlla yombal lepp lo xamne gis na ne mom ci téré yi duko jégué it lepp lo xamne gis na ci téré yi duko jégué mu sant yalla mu sant yalla gën di sori fu mu tollu gën diko sori fu mu tollu lu mu gis ne nak yalla ko natto mu ci mu koy faral di def lu mu gis ne yalla ko natto mu di faral di def fu mu tollu di tuup fu mu tollu di tuup tuub ñaan rek mu ne tay ñaan rek ag ci bañ jégué ti muku muku ag ci bañ ko jégué ti muku muku sant ñëpp ñëpp. nee na mi ngi sant ñëpp. waaw te ñaan yàlla mi nga xam ne moom nu fi dajale ci baaxub sëriñ bi. tey ñaan yàlla mi ñu fi dajale ci baaxub sëriñ bi. waaw dolli ñu tawfeex ñu fekk ko ay yoon yoon. dolli taw tawfeex ñu fekk ko ay yoon yoon. te gën a sunu sopp ñu baax ñu gën a yokk. sunu sopp ñu gën a wéy ci liñ bëgg itam gën a yokk. gën a wéy ci liñ bëgg itam gën a yokk. kenn ku ci nekk rek la ko yàlla def mu jafe ko yàlla na ko yomb. kenn ku nekk la ko yàlla def mu jafe ko yàlla na ko yomb. waaw ba kawe njortam. lu kawe njortam. waaw tubaarkaala mi ngi siyaare ñëpp di sant ñëpp. nee na mi ngi siyaare ñëpp di sant ñëpp. waaw ku mën naa jàng faatiha ak fukki ak benn. mu ne ku ne mën naa jàng faatiha ak fukki xolu wallaahu ak benn. ku mokkal allahu min kulli mu jàng ko ku mokkal allahu min kulli karim mu jàng ko ñetti yoon. ñu def ko muy addi borom daaro ak mboolem ñu aju ci mom ñu def ko muy addi borom daaro ak mboolem ñu aju ci mom ñu ngi sant señ bay gi silla ak mboolem mbokk taalibe yi fi teew yépp mu ne mi ngi sant señ bay gi silla ak mboolem bokk taalibe yi fi teew yépp waaw na yàlla fay leen te bolem tawfiq ci baaxu sëriñ bi na fay te ci te bu ko tuddee ne la fas ci sang bii sopp yi nga xamante ni wax na ni noonu lañ suñu borom sopp Sëriñ Tuubaa mbakki taalibe yi noonu lañu la sopp ndagam jàdd mu te ñàkk noonu di sàkk nga ñaanal leen ba ko jàddoon dellu si mbaa ñu bañ a jàdd sax waaye noonu ñaan ci dara jëy Sëriñ Tuubaa mu doon tukki ak borom Daaru Muxti mu bàyyi woon njaboot ak daraja Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké sa waajur bu sell Mbacké nga yàgg fi lool te wér sunu borom may na fan mu gudd ak wér gu yaram musal la ci ndox ci darajay Serigne Touba li ngay liggéeyal diine l'islam ci darajay Serigne Touba Mbacké yàlla na ko yàggale fu nga bëgg a yàgg ci darajay ku tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké yàgg fi lool te wér taalibe yi yàgg sa gannaaw jërëjëf Mbacké